tabaraka wa taala ñu woy sa waji taa yaasin woy na bani adama woy nañ ko muhammad woy nañ ko ahmad abidun ali woy sa waji woy nañ ko mahmudun woy ko maayin woy ko asirun woy ko aqibun na ñëpp def ni ñu màggal muhammad woy nañ ko taaha woy ko yaasin woy nañ sa waji saydu rasuluhu li saat mamadou le bi yaa gan مفتاح الجنة روحنا يو أيوة، سيدنا محمد رايم اسم الخير وين انكو سيد الهاي وين سواجي سيد الخلف خاتم الامم هم دول من العرب القدام كاتم القدام وين نريسو العرب وين كو سيد الفريق مم سيدنا محمد سدل وانك مم واخلين بدل وانك مم مدل من سدل وانك مم yaa du amal jaam. di nuyu bu baax a baax jigéen ñi di jiital ci jigéen ñi nga xamante ne moo nekk ci seen kanam ngeen àndal ak moom ànd ci gannaaw cheikh bi di liggéeyal muy soxna kàjjo su ma ko nuyoo rek mu yóbbaale jigéen ñi ñëpp géew tabaarakallah di jaar bu baax a baax Serigne Baye mi nga xamante ne tabaarakallah lépp cheikh bi la. ñu ngi teew koy nuyu moom gis mu ñëw lay nuyu am lay ziar yi neex na macha allah boo ko defee rek en attendant sunu gan yi ñëw ñu dugg ci liggéey bi. zikr bi ñun ñëpp xam nañu ko. macha allah bu ko defee ñu bokkandoo ñun ñëpp rek jàng astaghfirullah téeméer yoon buñ ko jàngee gannaaw fatiha. def junni sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad junni muy mille fois tabarakallah gannaaw fatiha astaghfirullah téeméer def junni sallallahu ala muhammad bismillah Thank you. ñun ñëpp dugal yéene yi dugal bëgg-bëgg yi cheikh bi ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu xadra bi yëpp ñu ngi nuyu daayira bi yëpp tabaarakallah di nuyu gan yi nga xamante ne yegg si nañu di leen ziare ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax marhaban bikum di nuyu sunu maam di maamu Cheikh di maamu Lo Ba di ko ziar tabarakallah di ko jox wàccuwaay moom it tabarakallah di sunu kilifa di maamu Cheikh di nuyu teewoon di ko nuyu di ko ziar tabarakallah yéen a ba dee comme bu baax leen ziar bu baax a baax bu ngi bu tëb fii naa di métti te fii la ñuy fanaan waaye ñëpp ñoo ngi leen di nuyu leen ziar Cheikh naa leen di bëgg Cheikh naa leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tabarakallah ak yi nag yëpp sëñ Mouhamad boobu rasulillah bi nga xamante ni moom la ñu àndee ak sunu cheikh bi nga xamante ni ak moom incha allahu bëgg na ak yéen ca la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ak moom bëgg àjjana ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu war nag ñun ñëpp mooy ñu roy sëriñ bu tedd boobu bëgg ko te topp moom sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne mooy bàyyi roqe moom mi nga xamante ne mooy bàyyi Zeynab moom mi nga xamante ne mooy bàyyi Ibrahima sallallahu alayhi wa sallam ma ngay wax imam Ali mu siyaanu yusallimu munaasiul juuxi xayru xaqi bu ilayhi xoolal dox ndànk ñëw ba pare lu ma neex laay sol ndax aw ma kenn ma ko gisoo ma ni ma xoolal dama koy kenn amul loo ma wax damay lekk yow jàpp xanaa gisoo ma fi ma bëri tey mooy ji mooy def baax ngay ñor di da ngay ñor di ay madame la directrice ak ak madame la secrétaire wa sibu yaa ak xale lu ko tuuti tuuti tuuti

moom rasulullah dafa daan génn bu dugg seen kër alayhi salaatu wasalaam fan lay jógee mu gën a ji jawwaan sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo jàkkaarloo kay maa ngi ko jëndee mooy nga xamante ne mënut a dugg xaaral ci mooy kii liggéey ci biir kër yi. sallallahu alayhi wa sallam. dégg nga wëccuwaay mu maa jox yemul ci nuyu jaam bi bu góor bi bu jigéen bi jànq bi nekk ci biir kër gi. ak xale bi waaye dafay ñëw di gaf ak yow. kontaan laa def daal ah. sol ko waaw. lépp jox ko nag. jàmm na ko ah man man la sax toog mu gaf ak yow. bu defal na kii rek. mu maaw gaf ak ñi gën a dem jigéen. sol ko waaw. ban borom kër ban borom kër moo xam bu jigéen la moo xam loolu mooy ñuy jàkk ci kër gi ak di nuyu ñi gën a doyale ci kër gi hmm? yegg ba ci li nga xam ne ñoom katoo fi def kenn ko ñoom jeexoon da ngay moo ñëw moo xam gardien bi la moo xam chauffeur bi la moo xam jànq bi la kenn ku ne moo ñëwee yaa ngi siine sax indi sa gémmiñ ci dëkk bi sa bopp ngay yëgal rek avancé ndax rek jàpp nga ne yaay kilifaam bàyyi Fatima tamit kër Rasul daaw nga doxale noonu ima abidun wa sibyan yusallimuhu yéen Thiel Mouhamed génn di doxal bi sallallahu alayhi wa sallam fekk benn xale sëgg di jeex xale bu am juróom-ñeenti at sëgg di jeex sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu xew mu ne ko man jaam laa sama njaati bi moo ma yónni. ca yang ba dama yónni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam kon wah ada ni ana luy mu yónni la dañu nekk fi jeex mu ne xaalis ba ma joxoon moo réer sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaata la mu ne ko ñaari sallallahu alaihi wasallam sallam pour nga dégg ma génne ñaar téeméer jox ko xale yi lépp bëgg dem ca marché ba mu ne ko déedéet xaaral mu ne ko lan ak lan la nga yónni mu ne ko sama njaati bi yónni na ma soble ak pomme ak xorom pour nga dégg ma sallallahu alayhi wa dugg ci marché bi jëndal ko soble pomme de terre ak xorom yéen si yàlla Muhammad ànd ak moom bëgg ko bàyyi mu dem mu ne ko déedéet xaaral sama na yow parce que boo demee sa njaati bi mën nañu dund foog ne da ngay yàggoon ci yoon bi wala da nga doon taxawaalu wala da nga doon dama rasulillahi ànd ak xale yi sallallahu alayhi wa sallam jàmm ba ci biir kër nuyonteeg njaatigéen jàmm sa teg moom mu ne ko dama doon xamal rek sa bi tambambaaluwul sa njaati bi sa njaatigé bi taxawaaluwul xaalis bee réerul maa mujj yëkkati xaalis bi sax jox ko yem ma ca moo mujj ànd ak moom ba biir marché ba ma ca maa mujj jëndal ak moom fii di ko layal pour nga xam loolu ëkkati ko bëgg lii bi waaye yow ndét bu la nekkal mu ne ko may muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna ma anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis ni ki tey tuub naa jébbalu naa bokk naa ci yow ndax sa wàcc gi nga wàcc sa bopp ba dugg seen biir kër gii ndax ku ñàkk solo kii yoo xam ne ni yàlla moo la yónni ne xale bi goreel naa la ci saa si rasulillahi maafium xayru xaqi wa ilayhi numi alayhi salaatu wasalaam xul daaimul bishiri يمتى على محمد دائم البشر مداف مداف إليه دائم البشر جمل بني بكون جاك سلم محمد لوا جمل بيوخ بيجي بيجي إسلام بني بكون جاك مصطفى ليكس بيجي خلقانه دائم البشر يمتى على محمد سابوك لي جاك صلى الله عليه وسلم دائم البشر جمل بني عطوم ما دائم جاك مصطفى ليكس بيجي خلقانه سيدنا محمد دخل يوريخ rasulullahi doo xam li ko naqari moo tax cheikh bi garab waaw nekk na ci xéewal treize mois du guddi du bëccëg du tisbaaru takkusaan saa boo ñëwee gis mbégte ci kanam te fekk bi ñoo ko teg loxo purgé ak pelam ci dignité saa boo ñëwee mu lay dal ak joxaat ak yow sallallahu alayhi wa sallam Moustapha daayimul bisiri rasulillahi فوق فك يا من تكلم بدي تخرجنا مو رسول الله عليه الصلاة والسلام باي فرق ما بيني ترو ترى ما خبرنا كيف ما سنيو أم دون توان يونت إذا كنت مم عالم بدي ينتهي على عيسى تنكم لفينيو أقولين مو رسول الله تنكم لفينيو أقولين مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو فين كسين كبوي يقال أن تنقلوا سين أي برم خم خم bale kenn di dem batale ko sa gannaaw kii ko sa circonstance la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam judd bale Fatimata bint Rasul mu ñëw ci àddina fekk ndëngate ndëngate ak mbon nekk ci makkatal mukarram kon Ismaïl la judd moom sallallahu taala alayhi wa sallam fekk te boo ko demoonoo ku am wërsëg benn yoonu bokk. yang kita barke jadi sallallahu alaihi wasallam ini agar kita jadi tàgg bi incha allahu taala di ñaan ini tak ñëpp aw ndax suñuy tàgg benn ji mindee grandeur nit tek di déglu di ci sànni kàddoom mau moom super. jaral suñu borom soo aaya boo dem ci beneen yëpp dafay tàggu dem yii sallallahu alayhi wa sallam wàcce bi ñuy ci kaw suuf yi jubluwul ci lenn lu dul ñu liggéeyal yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ci contexte yëpp la moo tax suñu koy am suufee seen bopp ci aw bàyyi li ñu nekk yëpp te tàgg gën gi ñu dee loolu rek moo ñu dajale fii ci wàllu wu ne la bismillah rahmaan rahim bëggal ma yoneen de fonkal ma yoneen de jullil si yoneen de kañal ma yoneen de bëggal ma yoneen de fonkal ma yoneen de jullil si yoneen de kañal ma yonent be amul morom te duma du morom saafi buyubura moom rek a jara kañ bëggal ma yonent be fonkal ma yonent be julil fi yonent be kañal ma yonent be amul morom te duma du morom yonent be يحببون الغراب مبرك جاك المبرك مبرك مليون مبرك مليون جبريل في يون خجل مليون يلا كتير يجو كوسرا يلا كتير بجنيسي مو ko teelale géeju Kawsara yàlla ko beerale li jóge si moom bëggal ma yonent bi fonkal ma yonent bi gëddal ma yonent bi kanal ma yonent bi yàlla ko teelale géeju Kawsara yàlla بجليسهما Amen. thankful, my devil. Then I give more than seen jàng déglu seen daan nañu ziare baax a baax a baax a baax ndax li wax ci xam-xam loolu am solo nit ki da wax li mu ci xam-xam mu xam ndax sëriñ Mansour daf daa wax ne bu la dara waaye man seex bi jaral na ma. seen li nga wax ci xam-xam ci Sayyidina Muhammad ak xoyafam ak tedd nga am ku diir buy nit soo demee. di nga yóbbaale loolu te soo ko yóbbaalee nga jëfe ko da xam ni am nga loo musul am ci àdduna gis naa waaraate bu ne dégg naa lu ne waaye li ma dégg fii tey jii ba tax sama rangoñ yi daanu sama dënn bii am na lu tax te Sayyiduna Muhammad laa bëgg sama xol bi bis ni ki tey te na ma yow kóllëre ak kullu xam ci jëmmi Mansour mi taxaw kontaan naa jërëjëf taxaw nag mooy buur jëw sopp na bi euh, robe bi muy wax ci XFM tey ci wàllu communication fu ma ca àgg bay dem RTS jëm ci moo tax muy buur jëwoon sopp na bi Mansour ñi ñu àndal ak suñu rakk ji bi jéeri mbóor dañu oxygène la dañu nekk ci benn kuréel boo xam seen ci intermédiaire bu bëgg ñu fas ko ñu ay communicateur okotorat xale yoo xamante ni dañu nekk fii ci banlieue bi di wax lu baax di ko def ci jëmmi maamam ma bëgg ñu ñaanal ñëw ci kattanu yonent bi suñu toogee wax ku mel ni seen seen nii ak seex bi déglu man nga ko xam naa ni gis naa loolu boo ko waxee dana am ci kattanu yonent bi yàlla yàlla guddal sa fan xale nga mais ku am ku baax Yàlla kenn la ku nas ko baalu di la jégalu suñuy tool bari na sunu balul fuñu jàmm nangu naa te ñu seede ni yàlla kenn la aw ma buur ku dul yow ni yàlla kenn la suku naa nas ko baalu di la jégalu suñuy tool bari na sunu balul fuñu jàmm jéggal ñu sunuy tooñ jéggal ñu sunuy bakkaar ñu ngi soog ñu jéggalul ñu ne xaw ma ful na jàmm. nangu naa te di seede ni yàlla kenn la xaw ma buur bu dul yow ni yàlla kenn la. jéggal ñu sunuy tooñ jéggal ñu sunuy bakkaar ñu ngi soog ñu jéggalul ñu ne xaw ma la way di la moo war bépp jàmm jàmm bu néew le baa ngi nii ba mu dogal si boppam nangu naa félicité li yàlla kenn la aw ma buur bu dul yow li kenn la soo toppoon suñu jëf safara dina bari gan ndox yaay yërmande yërmande bu mu nangu naa félicité ataupun semenjak Sakaradina berikan iya kiai ya Yemene Mustafa Mustafa di Yemene besar yang si dunia Nude sonu jekalun Nude hawa fulmi jauh jéggale di alfataax yaay aji ndimbale xabibal mustafa nangu naa te di seede ni yàlla kenn la aw ma buur bu dul yow ni yàlla kenn la sunu wetee di la way di way mustafa sunu wetee di la way di way mustafa su ma sañoon bu yàlla bi matal sàllaane maa ngi sàkku yoon ma ngeen man jàmm néew de dee. nangu naa te di seede ni yàlla kenn la am nga buur bu dul yow ni yàlla kenn la. suma sañoon bur yàlla bi matal sàllaane maa ngi sàkku yoon ma ngeen man jàmm néew de dee. mi si man mu ne ca ñoom ana kan mu néew léewul bu yal na ati ñu ati ñoog sa yërmande nangu na ati mi si di yàlla kenn la aw ma buur bu dul yow di yàlla kenn la Mustafa di xayru xayru xalqi yaa Mustafa di xayru xayrul alamin nangu na ati mi si موجود كل مصفادي أحمد أحمد ببشرى سجلنا مدينة مدينة منورة مولاتي بسيرة ليالي كاملة موجود مصفادي أحمد أحمد ببشرى سجلنا مدينة

sege naa ne amoo maas sege naa ne amoo kamal day bëggee nangu naa te di seede yàlla kenn la dul yow yàlla kenn la suñu yaa ko xam xam bu yàlla may ñu xol xolu muy sunu tuddee Ahmado du yellu julli si moom ndax su ne woon saay du yellu sunu tikaay nangu naa seede ni yàlla kenn la mu dul yow ni yàlla kenn la ni yàlla kenn la ni yàlla ya Allah alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di delluwaat di julli alayhi wa sallam am mbégte moo tax way sunu borom ngir delloo ko li mu moom dafa am borom xam-xam bu mag Rabia al Adawiya dafa wax ci ay bindam ay jàngaleen di delluwaat di julli si yow moom yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu njëkk am mbégte moo tax lay ñaan yàlla ñu daal di muy woy sama xol la borom di delloo li mu moom dafa am xam-xam bu sama xol ñu ne ko Rabial Adawiya di la wax ci ay bindam ay jàngaleen juga mengerti kondisi yang Allah yang Rasulullah Alaihi Wasallam diambil di wajibnya yang tidak dimulai sama Rasulullah juga dosa dunia dalam perumahan sama Rasulullah itu kami yang ada di negara yang dem nañ ci lool ci ay bindam ay jàngaleen di gën a julli si yow ngeen jàng sallallahu alayhi wa sallam ba def li ak lépp waa dina ñaan yàlla ñu daal di ñu mooy sama xol la bon di delloo ko lu mu mën dafa am borom xam-xam bu mag sama xol ñu xam yàlla ñu daal yàlla wannan tunda mawakaci aiki ne a zan gaba idan ya fi misiyar ki sunu dundu samsu bai mu mai ne su yi kuma ne ya yi yawa yi ne ne ke ko sama kasu da ba wani zai ba da wasu yi ma da ba mu ma wasu ma ma kuma da ya yi إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى kitab bi day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dine woon teg ci bi borom ba borom xam-xam yi am d'accord ci diggante jibal ak gën jiwu de kan moo gën a gaaw ñu ko yaa ngi lu mu seen yegg lu kanam demit mu yegg ca la différence moom ak kër gi ñu mooy sallallahu alayhi wa sallam moom lu mu seen wala xelal dem ca loolu mooy déplacement jëm ci loolu la différence jéggi lu mu lu kanam dem da nga obligé def action jëm ca loolu yeneen bi lu kanam dem loolu day obligé def action ñëw moo tax wax ne ni mu nekkee suñu intermédiaire ak suñu borom moom gën di mindee noonu la nekkee intermédiaire ci diggante ñaari ndox bu lew ak bu sax borom la ci alquran karim yàlla di wax marjan saxni ma shafiya baynahuma barzakh la yabghiyani ñaar wala ci ñaari yi di internaute yi Sénégal yi noonu non nekkee intermédiaire ci diggante. ñu wax la ko yow lan ngay gis abi dafa dem vacances elle va bientôt revenir prendre sa place. waaw chéri kon man ma bàyyi la. waaye dëgg la jël sama sama rendu ak seen copain. mais après su ñu ko donc naa la mën

yow jëluwaay yi yëpp dañu ci kaso bi ñu ko dugalee ba tëj kaso bi mu ne sooy rëñeet boo ne ko dugal bi moo dugal ci kaso bi yiw yàlla la. ñu wax ko buur buur ñu teg buur ne la ngeen ñu may teg lañ ko waaw fii xaaral benn ci pare ci tànn xaaral ma teg la daal di waaye ñu def ñu wax ne ñu ci kooku ñu ngi tuur la ci ñun aussi. li nga xamante ne dem nañu ci ci bul wax ko li nga xamante ne moom la waxaat fii wala dégg nga mooy tenkal toog ñu wax ko bu bàyyi ko waaj bu ñu fa ma tane wax daal ñu def ànd ak kenn bàyyi ñu dëkkaat baaraamam moom rek am dem rëbb ja mu dem rëbb ci àll foofu mu ngi tadee benn xeet boo xam ne at bu jot dañuy sacrifier benn nit ñu jàpp ko dem nañu ci lëmasoo ak góob moom expert bi war a xool ne kii jar naa sacrifié mu xool buur bi ba jeexal ko ne kii matul du sacrifice ndax dafa góob dafa ñàkk ay baaraam mu koy mën ci jëli organam dañ ko yeewi bàyyi mu taw comme dañ koy fekk delluwaat si pare bi benn nit ne nañ ko woon waa ji ñu woon ko waa ji waa ji ñëw jàkkaarloo ak moom bul wax ko histoire am fi mu jaar léegi ak li mu mën si ut mu ne bul waxoon naa la ko ne kii ma waxoon naa la sànq boo ma tàggoon seen baaraam ñu mu yàlla ko mu ne wax tëj ju ma la tëj nag du la mel yiwu yàlla loolu si la mu ne soo ma tëj woon man ngay àndal te soo àndee man suñu ma jàppee bari na ñëw ko waaye duñ ma bàyyi ndax man dara maa ngi ci waaye ñoom doomu aadama suñu constat bu mu nekkee ci kaw suuf rek yow yàlla rawatina nag rawatina jamono joo ci nekkee nga gëm ni saa su ne weeru yonent bi mu nekk sa wet leeru yonent boobu nag nekk sa wet paasewul ñi am cofeel ci yow saa su ne ñuy ñaan yëpp nga mucc doomu aadama kooku mooy matérialisme ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga yëg sa biir xol mu nekk transcendance ci nga nekk doo wéet ndax ñi nekk ci biti saa su ne ñu ñaan nga mucc yonent bi taxaw yi ñaan boobu ñu la wéete parce que ñoom amuñu accès fi nga nekk mais gën di wéete moom amul bangeer ci àdduna bi yow buñ ko def rek teew kooku mooy matérialisme jamono jooju nag mu teewee ci yow di la wéttali mooy am lu muy déclenché ci yow yaram bi dafay des ndax yaram bi jamono jooju nga nekk ci jàmm xel yéen di ko ji taxawaay yi ci dinamique bi jàmm la aussi parce que ñoom am xel bi dem tukki fi nga nekk mais gën saa yu dellu si moom ñu yóbbal yaram bi dem bu muy dem nag su fekkee dem ba

lu mel ni mu nekk ku àjjana tëral ba pare di dugg ku nekk ku nekk àjjana moo tax benn góor yàlla autour bu ñu ko jàppee ñu toll ci fukki at waaye jamono yu bëri ñu defee di buur waxtaan ak moom sensibiliser ko ngir ñu bàyyi mu dem ci njabootam ñu dem ci buur wax mu ne waaw surtout le maire mu jéggalu comme ça ñu baax

boo déggee ne waaw wax dëgg yàlla def mu lii waaye def lekk bi xam nga loolu commerçant kenn du ko jàng rek ci làmb bi waaye bi nekk ci jamono bi mu bindee lettre bi bind lettre bi ñu ñaanal ko yàlla boo bi saa su ne di wax yàlla te ci ñu ma tëj yàlla nga mën a seen yëkkati buur ci ko lekk sa jàngal nga mën a seen tëj yi ñu ma tëj ak li ma la fi liggéeyam ci ci ma leen ci ci at lekk yàlla yi wasaare yi ci buur nga ne waaw yow tax ngay mau loolu mau ke su ne ma ne waaw dama ko def yàlla ma ko buur buur saa su ne ñu ke jam, yow daa ko defal ndax buur su ñàkkee jàmm rek nga wekku ci moom ñëpp ñàkk jàmm mu ne moo xam sama sama am na dimension la saa su nekk dimension la yal nañu yàlla dolli sutura gën ji bi bi muy dugg si Màkka ci fàkku bi may fàttali nag ne jamono bi nga xamante ne aaye bu tedd bi dañuy wàcc si ndax fa tax naa laaj ko fat xan sa biir bi aaye bi di wàcc bi mu tee boobu nag wax tax na gën ji mi def ak ñu ngi nekk ci misère waaw moo tax am na dimension dara neexul yàlla wàcc aaye bi et cette année, nous avons accordé une victoire éclatante. malgré nekk si naxaat nekk ci ay jafe-jafe ñu wàcce la ay bu màgg loolu foofu la yeneen ci di jàngale diggante doute bon mooy jiitu jaana ak la foi muy gëm maanaam nga nekk ci jafe-jafe ba pare war a gëm ne lañ la wax muy dund sa biir yaram dana mos a dox muy ndam lu kawe bu dul fay ba mukk loolu la ko yàlla waaye ay a gëm loolu ndax am ci alquraanu karim aussi def mu nekk la réaction ak jëf yàlla moom suñu moom def yàlla lu ci li muy def mu nekk ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana mos a dox muy ndab ndax lu kay say bi nga xamante ne suñu borom digal waaye ay yeneen bi war naa leen suñu doomu xam nga ay ci alxuraanu karim aussi muy bëgg na jamono bi muy sàkk doomu aadama yàlla def yonent bi fekke ko mu nekk te yonent bi sans alxuraanu karim nekk ci dëmm mënut a fekkee événement majeur boobu muy sàkkee doomu aadama mu wax arrahman yonent bi alayhi salaatu wasalaam manto boobu la yàlla soxla pour ñu seen ko moom la sol man li ci topp moo koy waar am na maanaam il a enseigné le Coran kan la ko jàngal ndax su fekkoon ne jàngale sàkk ko jiitu mu a créé a ne ko jàngal directement la ko jàngal ndax li tax ma ne moom la ko jàngal soo demaatee ci xunt bi jamono bi nga xamante ne Jibril alayhi salaam mi war a ñëw ci yonent bi ci xunt bi yonent bi mën na xanaa loolu xam na ne guddi yi waajal nañu asamaan malaayka yi def nañu def nañu ay air d'odeur diggante tey yàlla ak rob bi mu nekk yang ndax diggante mooy tu, ak ror bi yang dia ñuy fàttali yang li fa nekk ci borom dafa dia ci wóor kaaba bi waaye dia yeneen dia tàmbalee dia ci dia yang xiraa bi ko tàmbalee dem dia dafa samp dia projecteur bu ngeen di rek gis mu wax ko exactement yang nga dara dajee jëmri exactement moo tax yeneen yang kenn di yang ñaam yang yàlla ak juróom ñeent bu lekk ci yang ci xol bi laataa yéen ñu fa dem aussi ay xale seen waajur nee nañ leen jéem leen dem dem ci compte yi ndax ki ñu wax ne mooy gën a limité war naa feeñ te ci ñun la war a feeñ ngeen jéem ku ñu leen ñu dee foofu ba yu dellu see ñàkk seen i xel ndax yan nekkoon jox ko te boobu yàlla ñu wàjjal kenn te di waxtaan ak moom diisoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk ci biir nit ñi yenn say mu nekk ci biir nit ñi xolam neex ndax xam na ne moom la ñu waajal ci kër gi ñu nekk te ko waxtaan musul def confidence jël Xadija bi ñu seet musu ko def confidence ne ko maa dara nekk seen ci biir su amee 40 ans musu am ak soxna ak borom kër li ñu jege woon musu ko def confidence boobu loolu ci muñ rek dafay muñ jamono bi ñu waxee suñu borom ndax dafa permanent contact bi am digganteem ak yàlla dafa permanent saa su a daan jëm ci boromam avant mu nekk ne ak bi mu ko doonee saa ne ngi dem ci dama ko ñëw ndax yàlla ko doy loo ak borom kër ni mu jegee woo mosu ko def moo tax Jibril bi mu essayé ci

فيما مدى غدا لا بي سبدا الجواد له بريء من غير الجواد وسامه القدوس من غير المختار في النسب كالنبي di ko yóbbu ci ginnaaw yeneen ci làkk di ko yóbbu nag ba teg ko ci lu góor di def le poisson ci

réew sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa ak li mu liggéey ci exil bi bu tedd bi teg ko ci lu ba nekk njaaram ci li nga jëm kaw jamono teg ko ci xamante تحسيبا سورة الرحمن علم الإنسان علم البيع والشمس والقمر بتساوي والسماء رفعه وضع الميزان ولا تدعوا في الميزان لكن والأرض وضعها للألم فيها ذو العسف والريحان ينوي petit second, son mari, vingt et une fois, le disnobor, وقضي على خلق الإنسان من صلصال كالفحم وخلق الجن من واحد من مرقبه آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان أستاذ dañuy waxtaan ak moom avant ñuy eggale muy wax

di di sant nag wala ci am di sant ñëpp ci ci taxawaay bi ci jàppale ci jamono yi nga xamante ni ñu nekkoon ci xewal bi am ñu wooye ñu ci jamono bi nekk aussi ñu ñaan rek lépp loo xam ne jàpp nañ ko ci suñu borom di sant yàlla ko yàlla wesaare ci ci réew mi ci barke réew mi ko sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla def xam nga nekk am na nekk ci biir saal bi du ma lay joxal sax nekk ndax indi loolu ci Cheikh Ahmadou Bamba mu nekkee suñu borom qui exilent les trois li mu remercié pendant sept ans et sept mois yi ci Amadou Ba mu nekk foofu ca li mu doon ci exil bi li mu remarqué saa yu ne cëpp ba jàkkaarloo moom li mu li ko def moom yónnee ko muuñ reetaan wan ko métier bu mu nekkee mu ne leneen li ko li ko yëbal encore mooy Cheikh Amadou Ba mu ko laaj lan sama njaboot fay tax yéen a ngi am seen mu exil mu ne léegi ñu koy limaat encore mu suba la man tey daa war a jëriñ wàllu sow musul am parce que musul fixé boppam dégg dafa borom xam-xam mu ne le meilleur délai est celui qu'on n'a pas encore fixé moom musul fixé boppam délai parce que dafa génn ci temps bi mu nekkee muy guddi na bëccëg na muy suba na ngoon na dafa génn ci loolu dafa dugg ci temps divin mooy cas bi nga xam ne moom propulsé wul na leen ci gàllankoor sant sant jëlee ko Makka parce ko ay Aqsa yóbbu ci boromam. cas boobu borom xam-xam yi d'accord dafa ci meew ñu tëral ko muy tuuti jamono jooju yonent bi départ jëm ca borom bi. nga xamante ne kaas bi jeex na war a gàllankoor ba jeex.

여러분, 여러분. Thank you. down with us. You have a problem here? Everyone thank you stand up mabili mahe. Bak bunu gel. Bak bunu gel. Bak bunu gel. أزير مهربائه نزير وزن العداء من الناس وذرنا الأعداء من كان لي بالجود وهو شكور بخوري وتأييدي ويفي لدى العدا من الواسع الوهاب فهو نسير أميري لباسي ومصري وسيلتي خديما له هو القديم يميره وجاري على الوهاب جل تكرمه وبلغنا في الدنيا وكلمنا في العيلة وملكنا في الفتنة واحسن به من الخير والأهل والعين والأحجار يا رحمن يا رحيم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الناس ارحم عبادك الصالحين اللهم استهدف أهل من عافية قدونا وآثارنا واتق إلى رحمتك مسيرنا ومحالنا واجعل سجانك على فاتحة من جنگات فاتحة رداءه ومني له شكر يدوم كثير فجئت ببشر منه أبي شكره هل صفاء من رضوانه ما أكنه بني نبي النفس صدق خبير خبير رديت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو خدير فاكرم به ربا نفى عني العدا وساخ المنعالي والجناح الحمد لله

وكلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصوري وتعيدي ويزي لدى العدا من الواسع الوهاب فهو نسير

xanaa pare ko rek xam ne suñu sëriñ moo fiy ñëw di jàppale Ibrahima Fall di jàppale suñu bopp di ko ñaanal yàlla suñu borom bi mu yàgg ko di ko teewe ñun itam ñu yàgg fi di ko teertule daal ci barke Mouhamed lool daal la ñuy ñaan ci barke Seydina Mouhamed yàlla nañ ko yàgg di teewe kontaan nañ trop sama mbokki taalibe yi xanaa di leen ñaax rek ñu gën a góorgóorlu rek jàpp ci rek xam ne yëfi sëriñ Touba moom tanki kanam rek la am waaye amul tanki ginnaaw jangi neex rek sha allah ñu koy waja nañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim Ya nañ yàlla may ndam ci barke sayyidina muhammad ki nga xamanteni mo koy organiser tamet yalla may ko wër ak gudd fan gën ko mëna may doole ak katan bu koy ak bam koy tewé at bu nek ci barke Seydina Mohamed baawati darus salam wa fi daaru min ah Ibrahima de baax rek lañ ko xamal wax deug yalla yaatu rek lu baax lu ne ñu koy defal ñu diko sant diko ko gërëm jërëjëfe faal ñoo koy sant diko ko bax dog lañu xam ci mom wax deug yalla bax na am nak talib am na diine ndax bés bi mom bésu señ murtala Mbacke lañ koy wax ndax ñun bañu ñu nekkee ay tur tànk sëñ Mourtala papaam lañ xam muy wajuram muy ñëw di ñu fekk si ñu koy teeru teeru bu rafet ba señ mamor mi xajj kon nak ki koy def muy Khalil Ibrahima Fall ñogi ngi ñaan yalla suñu mag la ñogi ñaan yalla aw fanam gudd ci kër sambakan gi xewal rek lay lay am ak ak njabotam ak njabotu mbollem julit ñogi ñaan di ko ay deewen yu bare bari ci barke Maam Mor Mbacke ñogi ñaan ci kàttanu yalla barkeb suñu fallu Mbacke yal na fi yag te sax fi Ibrahima Fall ñong koy sant diko ko gërëm Maam Mor Mbacke mi nga xamni nak moko fi taxa ñew yalla na fi yag te wér daanda gudd gu fan wir gu yaram gu na gañ ak goro a sama mag bu baax ji nak maa ngi koy sant diko yalla na fi yag te ak ñun ñepp njaboot ñi ngi ñaan yalla saay bu fi ñëwé limi def yalla nako gëna yalla gëna yokal ñuko a yokkal te ñu ngi sant Ibrahima Fall tamit suñu dëkk bi suñu xol sét na kontaan nañ ci moom bu nekkati japp ma nga ca lu mu yëgul ak lu mu yëgul yëpp ma nga ca ñu ngi koy gëreem di sant diko ñaanal yalla jappalé na ñu lool lu mu yëgul ak ko am dé ma nga bokk yow ko am bànneex ma nga bokk yow ko am la naqari ma nga bokk yow ñu santam nak ñu koy gëreem di sant kéra ba suñu forage bee réel gisuñu kenn kun ci dimbali ku dul moom moo rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa maulana بعد الصلاة والتسليم عليه له والآل وصحبه والأسوء يلا وأسب لنا علينا ربي آفية وابلنا الخصد في دارين يلا وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لزالين من الخيرات يلا واسلق بنا نهج رشد واقفنا سللا واطرد لنا الجن وسيطان يلا وكملا كل ما ننهو ونقصده وابلنا كل ما نختار يلا ورلنا كل شيء صحب سي أرن واسرا كل سي تسير على تابلنا حمرنا سائلنا بدنا وهب لنا رستوى توفيقي على ودمرا كل أهدا انت لربنا قبل الوصول لنا يلا يلا وكن لنا عاصما من كل مسلكة والفاروق جميس التيمام أبيت الله ودود سمدي أبغى محمدي سرا وجالا في البرايا الزمدي مدى لنا الإسلام والكرماء وبنزعة لكل زمان يقود بزار والباطل من أتى لله في كل زمن خدمته عن الخيوب عزبا والاستقامة وسوفا وعبا لبان كون المصطفى لبان كون المصطفى رئيسا

الإلوام جيسس سقني المري سقن قدما أني ما لم يروا لقما سيت بيا وبين الله سرا يزيدني وبلا لا إله إلا الله وليس لا إله إلا الله لا إله لا يفعل فليس لا إله إلا الله لا إله إلا الله يفعل لا إله إلا الله يفعل فليس لا إله لا لا لا إلا الله لا إله إلا الله لا لا إلا الله يفعل فليس لا إله إلا الله لا إله إلا لا إفعل يلا يا دبور لا إله إلا الله xarit Isma Baba Garaas mbokki département de Bambey yi mbokki région de Diourbel ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam waaye loolu yépp nag ñu boole ko ak ak yar di fa baax suñu nuyoo boobu. kër Samba Kane ngi nii di say soppe ñëpp taxaw ci ginnaaw Ibrahima Khalil sunu xel dal na sunu xol sedd na ndax lii nga def àdduna bépp nga ko defal kon maa ngi sant xabaan bu baax di ko gërëm ci turu Ibrahima Khalil. di sant suñu ñaari waajur yi nekk ci biir kër gi muy suñu waajur soxna Coro ak suñu waajur Khady Diop ndax lépp ñoom la du ci commune Kër Samba Kane parce que lii Mor Pouye wax tey waa Caxar teew nañu te teraanga yi mu ak waa Caxar moo leen indi tey waa Ngoy teew nañu te teraanga yi mu ak waa Ngoy ñu sant ñu ngi lay gërëm. waaye kenn du sant nit ba noppi rek dem sa yoon te tegoo ko fenn. ñu am mbégte lool teeru la tey fii ci arrondissement Baba Garage ci commune bu Kër Samba Kane di ànd ak délégation bu am solo ñu lim leen fi léegi muy waa bu administration ñëw tey fii teewal fii préfet département bu Bambey. suis votre gouverneur la région du Diourbel Mohamed Moustapha Ndaw indil la le président de la république ak bu premier ministre ak bu ministre de l'intérieur ak le gouvernement bi yëpp ki nga xam ne kii moo waral ngan gi tey yàlla le na mu déggoo ak administration bi ci ndaxte ñun ci suñu wàll bopp liñ si ñëwee léegi bu jëm ci wàllu administration wala bu jëm ci population yi boo ko bëggee gërëm dafa laa ne bu ma gërëm gërëmal président parce que lépp lu ma def ci lu baax rek président moo tax ma def ko. donc vraiment ku ku ñu ku ñu bëggee la ku ñu rafetlu sa teewaay la ci réew mi ak ci bitim président de la république li mu bëgg ci defar ak li mu bëgg. ci walu diine ji di jappale diine ji taxawu diine ji amul keneen ku ko attan donc ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax yàlla yàggal ko fi yàlla wéral ko fi cheikhul xadim cheikh amadou ban ba def leen ni lu màggal sëriñu cheikh murtada bàyyi sëriñ mamoor jàmbaar ja borom tuuba borom njaareem xaadimal مصطفى خير الخديم سيب مجد بروم جمعي بروم مكالجي بروم كالجي نود مكباري خادم الرسول سي أحمد بامبا خادم الخديم خير الخديم شيخنا الخديم سيرين توبه Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba dem leen nii nu màggal baayu Serigne mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu ñëpp te bii jotaay yàlla na bokk ci bi ñu ciy musal euh, kon ñu ngi nuyu kilifa yëpp di leen jot li nuyee kilifa yëpp tàmbale ci sëñ Sidi Muxtaar damay wax ne toujours fu ñu ko waxee nuyoom boole nañ ci turu kilifa yëpp kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp ndax noonu la doxe te ñoom itam noonu la doxe wutuñu par parloo wutuñu ay clan wutuñu ay sax ay nit nit ko xam ku ko xam da nga koy wutal yàlla te yàlla yëpp ku ne xam ne doyewul nit kon lan mooy wutal nit yàlla mooy teg ko ci yoon kon ñooñu loolu lañ seqal nit ñi ku bëgg nit sol am am texe tey ak ëllëg la kooku doo ko wëri doo ko jënd yi kon ñun ñi ngi fay teewal kilifa yëpp ndax njaboot yëpp fi nekk Eh, tàmbalee ko ci kilifa yi nga xamné ñoy ñooy Ibrahima Khalil Fall ginnaaw bu ñu nuyoo le préfet ni nga xamné ne ni ko waxe sank mo fi teewal préfet département Bambey mu teewal fi gouverneur teew fi président de la république ak premier ministre ak ministre de l'intérieur ak gouvernement Sénégal yépp ñu leen di nuyu di ko ñaan mu jot lu ñu suñu di nuyu imaam yi tamit ay imaam yi fa nekk yëpp gis nañu seen taxawaay ñëpp ñëw nañ fii ak chef de village bi waaye di nuyu yi tamit sëñ Mbàkke mi nga xam ne moo fi teewal suñu kilifa ga sëñ Gédé xaritu sëñ Mourtada bu ñëwee fii sëñ Gédé la walla ci la bokk daan futtiku ànd ak moom di nit ku baax sëñ Mbàkke tamit ñu di ko fi dégg rek ci lu baax ndax bu awoon beneen yoon it dañuy sonal rek waaye ci lu baax ak ko bu yar ak ko taalibe rek lañ ko dégg dañ koy nuyu bu baax di nuy tamit sëñ Maxtaar Mbàkke ak mbooleem mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ko teew di la nuyu Ibrahima ak ñi nga xam ne yéen ñi fi ñëw ñëpp tey tey ñu bare wax nañ ma ay maire dëkk lañu rawatina suñu xarit àlle ñoom tam ñu ngi koy nuyu mu jotti lu suñu mag suñu Abdoul Aziz di ko nuyu bu baax moom itam di ko di ko di ko sant ci taxawaayam bu rafet ak li nu seq ak moom ci bokk gi wante tamit xarit di Ibrahima di la nuyu bu baax di la fekk fii ci kër Sàmm Kan yi bokk bi nuyu nag bokk yi yëpp dëkk bi ak tund yi ci département bi sax fekk nañ la fi ay yoon waxoon naa la ko fii tamit ku dugg sa kër position bu nekk rek porte wu nga ko ànd nga ko ak sëñ Mourtada te kon lu ñuy gis la muy doomi sëñ Touba doomi sëñ Touba liñ ci jublu mooy nit ku baax rek lay doon ku lay doon kon te ñoom it ku sell rek la ñuy dem ku sell it la ñuy amanteel am am bu wóor ñëpp leen am nag waaye ñoom ñoom ku ñuy amanteel day doon nit bu baax sell damay wax ne ànd ak ñoom ak ñu ànd ak yow bokkul da ñu bari danañu ànd ak ñoom waaye nag ñu muy àndal ñoom daawul bari ndax ku ànd ak nit man na laa raw dootoo ko gis sax waaye ku nit àndal nag day jàpp ci sa loxo su loo su loo gisul sax jàpp ci sa loxo moom mii nag loolu daf cee bokk te xam nañ ne ñoom du ñu toppi nit alal duñu ko toppi daraja duñu ko topp siiw duñu ko topp leneen wante dañuy gis xol bu sell rek ñu xam ne kii mën naa liggéey ci doomu aadama yi ñu dolli ko loolu moo tax mu wóor ma ne kon li nga wax léegi sànq góor ñu ngi lay sant bu baax waxtu nañu gis la ak moom di la dégg ci wax ju rafet lu am solo la euh, fii waxoon naa ko wax nga ko ne mënoon naa fee ba ñu ñëw te du ko wàññi dara wante nag bu la nit bu baax jëmbatalee yaa koy suuxat moom moo ko suuxat seen jëmbat nag du dee moom xëy na boo ko suuxatul nag mën na faa des wala mu dem sax ba làq boppam ci doo ko gisati waaye du dee waaye nag yow bu la yàlla dimbalee nga di ko suuxat boog sa njàmbaar la am na noo xam ne damay wax ne ñun nekk ñu fi di wax sëñ Mourtada sunu waajur la fu jaan jaar fu mu daan gan déedéet du du du façon boobu parce que dama ne niveau yi bokkul ci beneen dimension lañu nekk ñoom wante nag dañuy wax ne fépp koo xam ne gis nañu mu am lum ko lu ko ko ëmbal wala lum lum ko jàppale boppam jàpp biiram dañ xam ko kooku ñu tamit danañ ci jéem a jaar te loolu moo tax ñu sawar ci Ibrahima mu nekkoon ak sëñ Murtada ndax ku ne xam na ne nga nekk ak doon sëñ Tuubaa mag ñooñu ñu am fuñ la teg nga dem ba nii nga ko defal sax daw ko àgg mais ku ne xam na ne kooku xam na la muy def loolu nag mooy ñu jox dala jëmbatal la dara nga di ko suuxatal bu dal ba day jëm kaw rek loolu moo tax ñun tam ñu sawar ci ba sëñ laa demee yàgg na léegi ma fukki at fukki du benn bis gis naa fi lu bare gis naa loo xam ne sax bëgguma ko woon a gis ba tax na kon suñu ko jàppee mu jàpp nag ci fulla wante ci fayda wante ci pas-pas ak it nag mu jaral ko lu ne léeg-léeg mu xulal am na jamono bu jafe boo xam ne xeexal sax daanaka defal nañu ko ci lépp nag te yëguñu ko sax dañoo dem ba ci digg bi soog mu attan ci leen te moo na booba nag mënoon naa demee neneen ndax bu doon àdduna rek te yooyu jamono mënoon naa féete feneen wala mu defee ko neneen waaye pas-pasam ak bëgg lu baax moo tax li ngeen li nga wax ne monsieur le préfet ne moom réew mi la bëgg ak ci lu mu ci nekk lu baax fu la lu baax nekk mu waaye fu leneen nekkit nag mu def ca la man waaw lu mu ci mën a fekk dana ko fekk lu mu ci mën a naqaralu mu naqar lu mu ci mën a wax fekk mu jabar ñu ngi luy bu baax sëñ Abdou Faye ñuy ko muy ku baax daf ma waar sa xaw séréer xaw ma naka lay eggee foofu waaw séréer bu dem ba tukulóor yi sax mu génn weesu leen mais daf lay jaaxal <laughs> waaw am néegu ñax damay dem dem bu ci dëkk àll yi fekk ma di leen wax ne bés ni ko tey bés na ko démb maa nga Brésil ak Argentine mu sori lool ma dem ci dëkk ay koo xam ne gis ay néegi ñax ñu dëkk ci néegi ñax ya école ba lañ tabax ma ne mais lii nag ñun war nañ ko xool dëkk ci ay néegi ñax ba na tabax ci bar bu ba xam ne mooy defar nit mais kooku beneen affaire la ma gis Abdou néegi ñax la dëkk tey jël ay millions centaines de millions di ko def ci ay jàkkaar ak école loolu moom wax du yàlla séeréer ëpp na ci est la sax waaw wante dafa xam na li muy def waaw ndax am na ñoo xam ne bu ñu amee million ñu ngay lijjanti bu ca tege bu dee ñaar ñu bëgg bi leen muy ñett bu demee tuuti ñu bëgg caa tabax kon nag bu fekkente ne nit la koo xam ne lu mu am def ko ci lu baax kooku xam ne li muy def ma dellu si ci Ibrahima lool rek la seedeel ko ay bokkam xam ne li mu seq yàlla rek ak yonent bi ak sëñ Tuubaa te loolu mooy diine suñ fi ñëwee tamit ñépp lañ fi fekk jullit yëpp lañ fi fekk ndax sëñ baax amul kër damay wax ne sunu étude xale yi ñuy jàngal léegi suñu institut Al Azhar wala université Ahmadou Bamba dañu leen a bëgg a dugal ci beneen yoon ñu xam bu baax ndax li ñuy jàngal ci ñooñu xale yi dañ ko war xam diggante sëñ Touba ak Cheikh Sidi Asmaani ak ñooñu ak mag ñooñu léegi la mu abdi di wax maam buubul bi ak ñooñu maanaam ñu mel noonu la ñu seqoon lii moo koy mën a wane ñoom xam nañ ko waaye nag su fekkee ne ñëw ci barab gis fa ñëpp kenn ku ci nekk wax wax ju rafet kenn ku ci nekk yëgatoolu nga xam ne kër yooyu ndax ma ne damay ne kër yooyu ñooñu dañ dañ fee woon ngir di defar dañoo liggéeyal yàlla ba am ngërëmul yàlla yàlla jox leen clé jox leen terrain jox leen kër ñu tabax sàkket ñu tabax tëj yor seen i clé ku ca dugg sooy ku ñëw it ne dama bëgg dugg ñu dugal la léeg-léeg nag nit bëgg a dugg ba noppi bëgg a génnaat léeg-léegi nu dugg ba ca biir nga defee ne yaa moom kër gi léeg-léeg sax ku gàtt xel day dema dem ba bëgg nañ fexe ba rocc wala mujj wul foro këyit defe na kayitu kër ga la dem bëgg ko hypothéquer léeg-léeg mu am fa muy jafee kay mooy fa ngay dem ba ka nga ko jox ne ko kayitu kër gee mu bëgg a ñëw ca kër ga bu boobaa la coow di bàyyi sëñ Touba ñooñu liñ liggéey duñ ko jox kenn kenn du ko yor attanuñ ko ku ne nag dana la ci jox loo xam ne boo boo boo téeyu da ngay defe ne yaa ko yor mais dafay liggéey yàlla yàlla li mu def ak la ko nit di liggéeyal ba am moom kenn du ko lijjanti bu doon lijjanti tey bu doon lu ñuy lijjanti kese ndaw ko ndaa yi nëgë ni bés bu seen kar yi junniy sëñ Tuubaa ak junniy Seex Seydi Aj Malik junniy Seex ku ne loolu mën nañ ko lijjanti mais lijjanti lu baax ci yàlla ba xëy am ca cër kenn mënu moo tax ñooñu liñ ci am duñ ko fooyee danañ la sedd nag jox la wala ñu may la nga dugg nga dugg ci kër moom boo ko duggee yàgg borom kër gaa ci yem day mën a yéen a ci yem tekk xamoo ne ki tëj këram defar ko jël caabeem nga dugg ci biir boo demee dem ba defe na sa yëfa foofee nag la nit gàtt xel mën a yem waaye lu jafe-jafe-jafe ñoom bu ñu sànni seen yëf loolu moo tax kër yi noonu la ñu sëq ak yéen euh, sànq laa koy wax ma ni damay dem ci dëkk yi ndaw yi ma gis maire yi fi nekk ak ni saware ma ne mais ñii kenn da ngay dem ci dëkk ñu dem ci kër yi dem ku nekk may wax ne ñooñu responsabilité la ñu xam loolu la aale di wax léegi yaa Ibrahima wax ngeen ko damay wax ne même nun ci sëriñ sax dafa am problème problème mu responsabilité ak pouvoir sëriñ ak yéen responsabilité dafa bokkut ak pouvoir léeg-léeg sëriñ sax ñu fagg faggal ko wala ñu wërwëlal ko ba mu mujj defee na buur la fekk fekk responsabilité la responsabilité nga xam ne ab yan la yan nag boo ko defee feeg yéene ko woo da ngay defe ne nekkoo ci jàmm te waroo nekk ci jàmm waaye boo yenee dépend te xamal na yanu woo loolu moo tax bu fekkente ne yàlla dafa la jox pouvoir wala mu jox la nga nekk responsable moo xam sa diine la wala àdduna boo ko jëlee ab responsabilité day metti wax nga ko sànq dina metti mais metti bi am neexaay lay jur ndax day mujj dara duutu la sax dara duutu dis ci yow lépp lu ñu la def nga jiitu ci boo ko defee muy ab yan rek day dana metti waaye dana neexi waaye soo ko defee nguur moom du neex yàgg-yàgg day naqari ndax buur neexut responsabilité itam neexut waaye moo tane moo gën ndax yàgg-yàgg du doo am mettit te boo doonee buur da nga mas a am naqar ki am naqar nag ak ki koy a ami kooku du bokk kon ba tax na kon loolu moom la leen yàlla defal mooy ñi ma gis ñëpp ay chefs de village ak ay ay ay ay maire ngi fi kenn ku ci nekk wax tay tey nga wax ne da ngeen a ñëw ànd ngir ànd ndax Ibrahima jikkoom jikkoom du lool lool rek la responsabilité rek responsable rek la bu fekkoon te da koo def nguur wala nga am sa yëf dem kooku du du ko def nit ku yàlla yàlla it day tànn nag allahu alamu xaytu yajalu risalata maanaam ba mu daan yónni ay yoon sax du doon yónni n'importe qui du ko nekk la yónni da leen di tànn segg leen xool seen biographie seen leen seen seen seen seen seen parcours dafay rafet ba doo leen mën a def dara suñ demee ba yanu responsabilité ba ba mu egsi bu boobaa tamit dafay day yomb ci ñoom loolu moo tax ku yàlla def kilifa loolu mooy ngóotale koo ci gis nag nguur wala ku koy puukaréwa wala ku koy def rek xamal ne booba xamu ko yal na nu yàlla musal te ñi ma fi gis tey mel na ne loolu lañ jël te loolu laa gis ñu di ko def ci Ibrahima loolu tamit moo ñu boole ak ak ak moom ñu fekk ko fi fekk kook loo xam ne bu ko nekkoon taxaw ci waaye mu ànd ak ñun ci ngor ànd ak ñun ci pas-pas ànd ak ñun ci gëm-gëm loolu kon tamit war nañ ko mën a seedeel barab bii nga xam ne yéen a ko joxal seen cër bopp nun tamit nu wax li leen xam ne moo nu boole ak ak moom loolu nag mooy tax sunu réew mën a dem Euh, am réew du benn nit a koy yor du chef d'état kenn koy yor am réew mbo ñun ñëpp ko bokk kenn ku ci nekk boo jàppee ne fa nga ne da ngaa war a defar day daal di nekk loo xam ne dafay yomb waaye nit sax dafa wër te jël nit di ko gàll ci waaye lu ne nga nit ma ko war a defal loolu bu war sax du ko def ku am jom sax du ko def da ngay defe ne yaa war a defal nit lu ne loolu la am réew di taxaw ba mën a dëgër kenn ku ne jël sa responsabilité defe ne yow yaa war a yaa yaa war a defar réew mi lu ci baax yaa ko war def waaye kenn ku ne defee na dañ laa war a defal kooku gor du ko def bu ko defee nag kon ñu gëm ne lii ngeen nekk ak fii ñu nekk tey ñu ñëw fii suñ fi ñëwee loolu moo tax ñu gën fee sawar Ibrahima ñu gisee ñu umpante waxtu wu ne kon suñ dee ñëw di ñëw di fekk ko fii ci digg ay bokkam suñ fi déggoon leneen it ah danañ ñëw ndax xëy na bu ñu ko waxee ñu ñëw waaye nag buñ li tax ñuy sawar mooy saa buñ fi ñëwee rek dana gën a am courage li nu boole ak moom nga xam ne xam nañu ko noonu waaye tous ñu gis loo xam ne tamit loola day gën a tax ñu gën cee sawar kon ñu ngi koy ñaaral di ñaanal yéen ñëpp nag ndax yéen a ko jàppale ndax kenn kat lu bëgg bëgg bëgg dara it du ko bu doon ñàkk leen fayda dama koy wax sax léegi wax naa ko chef de village ndax buñ ne ñoom juróom chef de village foofu ak nangam ñu ànd ne ñoom ànd dañoo nekk ci ëpp ginnaaw xalil mais kooku ay ma mayewu ko bu leen wanoon nguur wala boppam duñ ñàkk fay ay kilifa la ñu parce que reste kenn ku nekk dëkk ba nga nekk wax naa ko leen seet ni leen kër sax boo fa nekkee ñu nekk boroom kër ga yor say soxna ak say doom yëpp am na noo xam ne boo ko melul kenn du la respecté boo génnee ñu di la faxasaka ak di la euh, piisante doo ci mën dara waaye am na noo xam ne boo ko melee boo génnee sax bu ñu bëgg nga génn loolu nag nit a koy def te jikko lay doon parce que diine diine comportement rek la du leneen boo gisee diine lislaam ak loolu ñu di ko wax coow li bari rayante bi jël ay bomb di ko taal ci ay jàkk di fekk ay nit ci ay aéroport ak restaurant nga def mais xam nga ni ku ne xam ne loolu du mu jullit parce que diine comportement lay jàngale kon yu mel noonu moo tax damay wax ne ñun li nu am ci diine ak li nu am ci ay kilifa ak liñ fi def bala nga koo xam dëgg dëgg dëgg muy du pays li pays yu ñuy tudd ay pays lislaam sax mais ñun xëy na ñàkk xam la rek waaye li nekk fi nekkul feneen parce que ñun xam na lu bare xam na nañ ku nekk itam wala bokk ku bare loolu moo tax li nu am du te loolu sax liñ ci mën a nekk liñ ci mën a xam tuuti rek mooy istuwaaru lislaam lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam màkk la juddoo ma màkk la nekk fa ba yonent gi ñëw mu gàddaayee fa dem dem dem dem Madina mais avant muy dem ma dina coow li sonal nañ ko lu ne dugal nañ ko ci fu ne dugg na ko lu ne daj na ko waaye ba muy yebal ay nit sax ne leen dem leen ci Éthiopie ci Afrique parce que ñooñu ay nit fa ne ay nit ñu ñuul la ñu woon su ngeen demee jàmm fa nekk te ñoo ñu mën a dimbale moo tax damay wax ne l'islam boo gisee mag ñaa ko xam parce que ñoo xam responsable responsabilité loolu moo tax ñun waruñoo xaar kenn ci diine l'islam lin nu ci am ak lin nu ci fàggul ci sunu mag ñi kenn amu ko ndax mooy gëm ndax muslim moom dama ne ñëpp daanaka damay wax sànq de boo gisee eh, <laughs> firaaw na sax muslim la woon laa ilaha illa alladi amana bihi banu israil wa ana minal muslimin kon muslim mooy ki nga xam ne mën na def loo xam ne gëmu ko boo dee jullee ko woor ak ndax ak wax lu dul dëgg ko def lu dul noonu ba noppi te gëmoo yàlla mais doo jullit jullit mooy gëm kon li am léegi nga xam ne moom la ñuy tuddee di ko diine lañ lu mën na nekk parce que bu fekkente ne nit ki gëmul yàlla ragalu ko kooku du taxul ñuy wax jullit jullit mooy ki ko gëm loolu moo taxoon mag ñi am sens am am pédagogie boo xam ne kenn amu ko ndax fexe nit ba mu gëm yonente yi lu ne dañ ci daan def yonente da daan mer am na yonente yi xam ne moo tax histoire léeg-léeg du da ngay da ngay da ngay da ngay rek ca kaw waaye am na yonente yoo xam dañ daan mer dem ba dem ba ñekki parce top nit diko wax lo wax mu gën di la nakaral nga yalla won la ay kemaat ñu ne la ak jabar la wala ñu ne la du dara mais koku même xolal mag ñi résultat bi ñu am fexé ba nit gëm ah yombul gëm yombul parce que pass pass la yëfi biir la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daan xex gar xari mais xex bobu du xexu dem di fekk ay nit nga di leen ray comme ça rek dañ liñ ko lim bëggoon di gëm lañ ko dob lañ bañoon mu amé fi diko ko bañ mu am diko ci xatal mais koku nak nit ki nak boko boko sëkëtele mu gis bopam wante nag pexe ba nit ki gëm yonent yi fi daan am ay téeméeri junni ak nangam la nga xam ne ñooñu ñëpp ak ak ak ak ak ak ak ak ak nga xam ne ak ñetti téeméer ñetti téeméer ak fukk ak ñett loolu ñooy ay yonent mais li nga xam ne mooy ay am bi yooyu xëy na ëpp na loolu téeméeri junne ak lu topp la waaye yonent yooyu yëpp kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn la ci ñooñu te ñooñu ñëpp ñi ci ëpp yoonu noowoon demoon na ba wax sax ne junni at yu manqué tuuti la dund demoon na ba mer sax ne yàlla alagal ñëpp Moussa comme mu jëg firaaw na dem ba mu junñu xar loolu am ci nga sorox jënd loolu ko ne man loolu ku ko yàlla mën loo nga mën ko mu jeex mais pexe ba wax ak nit ba mu dellu ci boppam ci xalaat ci teey ba mu gëm yàlla mais kooku du yombul loolu la suñ mag ñi nag loolu nag moo tax ñoom dañ leen a war a moo tax yi xew léegi fii yi xew moo tax sunu sunu école yi bu njëkk jafe woon na lool moo tax bu njëkk Euh, sëñ aale ñun ba ñuy ñëw foofu ci Taïba ndax ay 83 mu yàgg na parce que mooy tam école boobu ci Taïba école boobu cosaanu la booba boo ñëwee ci dëkk di wax ne da ngay wut sëñ di ñëw ci dëkk di dañuy ubbi école sax doo wax école arab ma xam ne mag ñi ñu am fula lañ nit ñi parce que arabe culture la ñun jànguñu arabe diine lañuy jàng ak xam-xam te soo masaan wax ñi arabe ñu ne ah arab arabe arabe wax nañ dëgg parce que ñun ñi yëpp xale yi ñu ñu àndal ñëpp ku ci nekk jaar nga ci biti waaye la nga fa gis bu doon lool rek da ngay mën naa am sax nga am problème gëm naa boo amul woon base fii léeg-léeg nga dem ba jaxasoo boo fekkee ñoom nga xool parce que ñoo gën a néew ci jullit yi liy jullit ci àdduna ab rek ci gën a néew kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee moo ci daanaka yonente yi ñett lañ xaw ma ñeent yoo xam ne ñooy ko dee wax sax moom lañ ci xam ñu ci des ñëpp xëy na cosaan wala yu deme noonu kon moom la ci téere wàcc ci moom ci arab lu mel noonu kon nag ñooñu ñëpp ñi ci ëpp kenn xamul leen wala buñ leen xamee tamit day nag dañoo dañoo am dañoo mën nañu wax ne dañoo échec daanaka ndax ñi ci ëpp amuñu ndam kenn lépp à cent pour cent comme kon nag ñoom ñii ñu ñëw ay millions mën a topp ci ñoom mën a fexe ba képp ku leen expliqué waaye nag jafe-jafe bi ci ñoom yiñ am nag ñoom fi mu mooy ku leen di leeralal seen liggéey ndax bu fekkente ne sëñ tubaakat yaa ngi ne sëñ Touba ab taalibe nga dem taal taal say sabar di fecce ko tëgg ko nangam mais kooku kooku ko gis ne kii day caaxaan ne kon kii kim topp nituk caaxaan la boo ko wonee li mu doon yàlla jëm nekk di ci dund ñu di ko ci sonal fu nit ñu duggal ko fa ba mu am lii mu am ngay jaamu yàlla mu wax la ko bind ko lu ne mu def ko mais kooku boo ko wonee fenn ñu bëgg ko ñooñu mag ñooñu kenn bañu leen mais ni nga koy wonee la yàlla sax am na noo xam ne boo ko ne wonee ñu bañ ko fi mu ne am na ñoo xam ne dëkk lislaam yi légui lay wax kii ma ko mais ay ay ay euh, ci ci ci ci 2001 ci affaire wu 11 septembre bi won ci Amérique bañ fa joggé ak di def nga xamné 28 fofu amna ci proclamation année ñaar fukki at ak ñaar la ci ren di def Nations Unies di fa def ay conférence at bu jot loolu kenn musu ko def at bu jot nga defa def ay mais dama né at booba turu turu turu naar motax ñuy yonent motax ñuy wax né léeg-léeg nit ñi dañuy jaawale turu diine ak naar diine l'islam imposé wul kenn ci tur moo tax temps boobu dama doon wax sama maam Mor ci sant naa ci parce que fu la neex nga jaar ci aéroport yi waaye boo tuddee Moustapha ñu ne kii terroriste la wala dara baax na mais tur léeg-léeg dañ koy jaawale kon diine gëm-gëm la ak pas-pas loolu moo taxoon ñu ne jàngaleetuñu jàngalewuñu arab boobu foo dem di ubbi école da nga naan sëñ bi ndigalul sëñ bi nit ñi dañ ci sawar waaye boo nee école arabe rek ñu ne ay ñi fi nekkoon ñi fi nekkoon de ay weddikat lañ ñi fi nekkoon de ñu ngay wax lee boo waxee li ñu wax la ca des fekk dégguñu sax diine loolu moo tax nañu gën xale yi ngeen jàpp kilifa yi jàpp leen seeni waajur jàpp leen ci kër yi ngeen nekk bu dee tijaan nga bu dee murid nga bu dee xaatir nga foo mën a nekk xamal ne ñooñu ay caaxaan yëkkatiwu leen woon ñooñu tamit ay parparloo yëkkatiwuñ leen léegi la ab sëriñ di wuti ay nit pour sama sama man damay ruuxu sax boo nee sama dafay dafa lay da ngay jaaxle parce que nit ki la jël defal la doxalal sa diggante ak yàlla mais kooku responsabilité la woyeful mu mel ne kon nag loolu lool la nga ñooñu nag loolu la ñu toppe woon sëñ Tuubaa ñi ko topp bi ñu fi jógeek ak léegi defe naa ne par rapport ak lam li ñu ko toppoon defe naa ne ay te bi ni jënd ko kon bu fekkoonte ne boppam la doon wooteel ba mu demee mu jeex ñoom kër yëpp noonu lañ mel kon ñooñu ay caaxaan yëkkatiwu leen woon kon nun ñi ànd ak ñoom bu nu caaxaan ku ko ci caaxaan yi itam kat doo leen sax gis kan yàlla na ci yàlla musal caaxaan yi nag bari na phénomène yi bari na fu nekk ñu ngi ay groupe di ko xalaate ñooy jàng fële ñooy jaare fële ñooy jaare ko ci ay jàngum xasida ñooy jaare ko ci ay groupe yeneen fu ne nit jaare ko ci ku ne rek jaare nga foo jaaree ba am bunt rek daal bëgg a jaare foofu waaye dañoo xamul na ñi liggéey ba am loolu kenn mënoo leen a fexe ba jaar leen fenn ba yàgg ci yàgg-yàgg day métti rek yal na nu yàlla musal ñu bokk ci nag yal na nu yàlla dimbale ñu bokk ci ñi leen topp ci niñ toppee yàlla ba am ngërëmul sunu borom ba ëllëg si biir ñu bañ leen a teg gàcce loolu moo tax ñu di leen gërëm ngeen góorgóorlu xale yi góorgóorlu leen ci seen jaamu yàlla nit ki yàlla daf ko bind ngir mu di ko jaamu ku yàlla jaamu gi jëriñoo ko dara mais daf lay tax nga mën a nga sta nga moomal nga moom sa bopp moom sa bopp du nga am alal du nga am ay kër du am nga ay moom sa bopp ngay nga dal xam fi nga jëm xam fi ngay teg sa tànk te loolu jaamu yàlla moo koy tax a mën a jëfandi loo mën a am ak lu mën a mel bu fekkee yaa nga nekk ci leneen lu neexul yàlla sa xel sax du dal te du yàgg kon nag xale yi góor góor leen bu leen yàkkamti yi xew phénomène yi ñuy wax ay terroristes yi bu leen kenn mën a dugal ci ay xaalis wala ñu di leen ci wax lool di leen dugal ci ay yoo xam ne du sax diine moo tax ñun ñu di ko fàttali toujours suñu université amul Bam bi ñu koy créé 2005 booba bañoon rek génnati suñu doom yi la woon ndax xëy na la ko jiitu léeg-léeg nga am chance boo ñëwee am chance bi waaye mujj na léegi léeg-léeg xale yi génn dem fee ñu jox leen xaalis sans dugal leen oot dugal leen ci leen yeneen xalaat yoo xam ne ñi koy sax def gëmuñu ci dara bu ko defee nag loolu moo tax ñu fexe am système boo xam ne léegi sax tar la nga doon bëgg a jàng ci àdduna ak lépp da koy am te borom sa diine boole ko fa nga nekk nga am ko nit boo koy jàngal da koy jàngal moo am xam-xam nga bàyyi ko boppam waaye mënoo jàngal nit ne ko mbubb mi ngay sol ak ngay waxee boo julli sax ni nga koy te diine yaatu nga mën koo déggal sa bopp loolu lépp mooy fexe ba jël nit ki ci sa bopp ci anam wu diine rek ndax nu ne lanuy nunu la ñuy xeexee voilà bu ko defee nag nanu fexe ba bàyyi suñu xale yi sàmm leen di fexe ba aar leen fexe ba dimbali leen ngi ñu ñu am ñu ñu góorgóorlu ci seen diine kon ñu ngi leen ci ñaaral yéen ñëpp muy soxna yi yéen ngeen góorlu muy góor yi muy muy jigéen yi di xale yu góor yi di xale yu jigéen yi ngeen nekk ci lu baax jaamu yàlla ndax nit ki bu bu ko kenn mën a dugal ci ne damay xale damay xale rek ba tax na damay fo bu ma ci weesoo wees na ko loolu ku la ko mën a wax dalay dugal rek boo nekkee ci la la neexit ba doon magit boo mënatul la foyit da ngay sa xol moom bu jóg kon nag bala nga koy nekk di ndaw nga nekk ci lu baax boo ko defee da ngay dem ba dootoo xam sax lu lu baax yàlla nu yàlla dimbali ci loolu kon njaboot gi góorgóorlu leen ngeen toppit seen i waajur ngeen respecte leen waaw ndax kat mag ñooñu kat kenn ak waajuram kenn kooy gis muy jënd ak dem ji fe dem koo xam ne bu fa demee duut nangoo gis ay kii nit ku baax doo ko tàggalee ko waajuram kon nag yooyu phénomène yooyu yëpp na ngeen ko bàyyee xel ngeen am seen fulay bopp te te jàng seen diine nag te topp yàlla du ngeen ko defee rek li ngeen bëgg yëpp da ngeen ko am kon préfet ñu ngi lay nuyu yow itam ñu ngi lay sant ndax fu ñu dem danga nga fi ñu la fekk yëpp da ngay toog ànd kook dal te loolu lu am solo la seen liggéey bi yombul waaye responsable boobu may wax rek la boo ko jàppee woon nguur tey la da ngay dem rek noppalu ji waaye boo ko jàppee responsabilité da ngay xam ne ab yan la foo la war a dem loo war a def rek da def amuloo ci dimanche bu samedi ak leneen te loolu mooy tax sunu réew man a dem kon yow itam yàlla na la yàlla jëmee kanam waaw ñi ngi gërëm ñëpp nag di leen sunu service d'ordre ñu ngi sant bu baax xamee nañ ko ndeysaan yàlla na la yàlla ndax li ngeen li ngeen liggéey bu am solo la waaw ndax nit ku damay wax ne ñu mat a bàyyi xel la ñu ndax nit koo xam ne boo boo jubee bu la neexee nga dem jàpp ci loxoom ku la neexee nga jëmee ko ku dëng rek ku doon ngay ragal mais kooku kooku beneen affaire la kon nag yàlla na leen yàlla dimbale aar leen yéen itam yàlla na leen yàlla dimbale aar leen ndax li ngeen nekk lu jafe la lu metti la nit koo xam ne bakkanam nit koo xam ne demul ci njabootam nit koo xam ne waxtu wu ne ma ngay sonn ngir jàmmi nit rek mais kooku kenn amul payam yàlla rek yàlla leen yàlla sàmm te li ngeen def ngeen am ci aduna wala kon nak ñi ngi leen di la la illa allah illa la illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha ของสติ không có ai để ở đây à kii wàll bi ñu ngi si trois mille cinq cent bi. waaw ah, trois mille cinq cent personnes. loolu mel ni nga remplir ñetti yoon Sorano. Sénégal daf ko teg pensa no vídeo. mas ça va bien mhm. wax rek ah waa soo réglé rek soo kiiwee rek après nga woo ñu ñu soo kiiwee rek après nga woo ñu non non que amuñu lu ñu kiiwee donc il faut gars jox la jox la jox la paas bi d'abord il faut gars jox la paas bi d'abord te Ousmane ak Seydou. doo fan ma déjà xaw ma fan la fan la. laa nëbb fàtte naa ko de waaw Sénégal si bitim bi waaw waaw su su su nga dem soo dem bon salle salle devant sur la droite hein waaw d'accord kon kon dañuy daje en face sénégalais yi suñu suñu si si femme femme boobu ñu duggoon non si femme boobu ñu duggoon mais il faut nga oo ñu si kanam de waaw parce que man man ki xamoon du mu la wax mun ma may xaar may xaar kii may xaar Ousmane il avait dans dans minutes à peu près quoi. d'accord voilà donc donc dans dans dans vingt vingt vingt cinq minutes ok ok d'accord xool Ok. ok foofu fee foofu non la def Non, non, non Non, du non non du non du non du jàll xam naa waaw mais nekkul man man xam naa ne du jàll xam naa ni du jàll du jàll du jàll il faut minimum di waaw waaw minimum deux mille la kay deux mille loolu bi nga commencé fii Westphal dañuy dañuy jógee boobu waaw waaw Westphal dañuy donc loolu si VDN waaw waaw oo ñu oo ñu dans vingt dans minutes non xam naa loolu non non problème du man du man xam naa ne du ñu d'accord rek moo tax lu concret laa wax. waaw avocat ci yoon bi. ok nga rappelé ñu dans vingt allo oui non mais fii amul trépied non amuñu trépied bu amuñu trépied waaw waaw mais suñu mais garaaw la ah. ma kii am na affaire am na allure affaire bi am na allure affaire bi am na allure ñoom xam nañ léegi kii bi caméra bi ma yore am na allure hmm. non non c'est que amul amul ñu sëkk ñun amatuñu trépied quoi waaw. d'accord. Ok, rappelez-nous rappelez tout à l'heure. Hein? D'accord. Dama, dama. جدل جدل قص جدل كرلم انت ngi may dégg ma ne dégg ma naan arrivé pay. support bi fan laa ko fan laa def support bi. moom nga waaw mais dama teel a jóg dama teel a jóg quatre heures laa jóg ah. il faisait quatre heures hein j'ai pas très bien dormi hein at boobu oui Ousmane ah. ah tu es là ok